الحمد لله الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي صلى وسلم عليه الله في الآل والصحب ومن والاه وأمر الأملاك أيضا بالصلاة والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين waala alihi wa saxbihi wa man tabiahum bi ixsaanin ila yowmi ddin wa nawiril janaana saddidil lisaan yaa man lahu dikri wa shukri bilxisaan wa tub ala kulliyati wa tahiri jamiaha walqalba minni mahiri wal tashkuri alladi huna aqulu yaa xayra man yanxu lahu maaqulu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di ñaan suñ boroom yiw yi mu def ci bisu àjjuma ji yàlla nañu ko defal kon ñu ñëw ni ñu ko baaxoo ak yeen ci jataayu fàttalante tey jii ñu bëgg a jël ay bind ci lenn ci ndénkaane yi Cheikhuna Ahmadul Xadim yu mu jëmale woon ci Sëriñ Daam Abdurahman Lo muy téere boobu di fatxul mannaan fi jawaabi abdirahman kon liñ faj si yéene waxtaane tey mooy baadun min wasaaya cheikh alxadim min xilaali fatxil mannaan fi jawaabi abdirahman muy téere bu am solo muy ndénkaane yu am solo yoo xam ne dinañ ñëw ci lenn ci solo yooyu kon ki bind dénkaane bi mën nañ ne ci barab bu mel ni ganiyun an taarif ki ko sàkk woon ci moom ba mu bind ko jëmale ko ci moom di jëmm ju màgg ju am wàccuwaay ñu mën a tudd ñaari mbir ba ñett ci wàccuwaay yooyu bi ci njëkk mooy xam ngeen ne képp koo xam ne guddi gu jot wala jëmm joo xam ne guddi gu jot dana naafila kaamilu alquran ci ñaari ràkka loolu doy na wàccuwaay am na lu ko waraloon waaye xëy na barab bi yaatuwul ngir indi loolu yépp mu bokk ci yi wone wàccuwaay yooyu mooy ne dundam bi yépp daf ko def ci alquranul karim féete woon ci jëmm jooju ñu wax ne ganiyun an taarif foo xam ne mën nañ ne njabootu boppam ci ay àndandoo ak ñu sosoo ci moom moo féete woon di leen jàngal alquranul karim kon ndénkaane boobu walla ndénkaane yooyu ci moom la jëm waaye dafa jëmaale ci képp koo xam ne jullit nga bu bëgg njëriñ daañu ñëw ci li ko waral nga xam ne gisuñu na mu ko sàkkoo ci moom waaye ci tontu li leer na ci ci ñun na mu ko sàkkoo ndax daf ko ne fa innaka ayuha tilmiisu saaltani an aktuba laka wasiyatan tantafiu biha fi sirri waljahr wa tadfau biha anka makaida alcheytan fa ajabtuka ila dalika baadal istixaara kon daf ne ko sàkku nga ci man ndénkaane boo xam ne ndénkaane boo xam ne dana la jëriñ danga ci jëriñu àddina ak alaaxira kon de loolu ndénkaane bu am solo la kon dénkaane boo xam ne dana la jëriñ ci lu nëbbu ak lu feeñ waaye dana danga ci fegoo ci pexey seytaane mu ne nag ma tontu la ci dénkaane boobu ginnaaw bu mu ko càmbaree def ci istixaara digganteem ak boroomam ne nag ma ma tegal la tënk bi muy nubza boo xam ne nañu déglu bu baax solo si mooy dana taxaw walla dana doy wëlis ab jàngalekat bu lay tëralal walla ab wéttal waaye danga ci jëriñu bu neexee suñ boroom ci àddina ak ci àllaaxira daf ne da ci jëriñu ci àddina ak àllaaxira yow ak képp ku bëgg ku ku xeemem ca loola ku xeemem ca ndénkaane yi walla ko bëgg jëriñu min am saalika ci ñi mel ne yow ci ñi bëgg lu mel noonu kon loolu moo ñu ci tàbbal moo ci tàbbal bépp jullit ci solos ndénkaane boobu mu tuddee ko fatxul mannaan fii jawaabi abdirahman ne nag yàlla na ko suñu borom def jëf ju sell ju mu nangu def ko muy sabab ngir sunu mucc àddina ak alaaxira waaye sunu mucc ci bépp safaan daadi ci tegaat nag yow ak képp ku xeemeem loolu ba tey loolu moo ñu ci tàbbalaat kon jëmm jooju ñuy wax yàlla dogal na mooy way juru way juru imaam yu fi nekk sëriñ Basiiru ak sëriñ Xaadim ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare kon mi ngi ko tàmbalee ci dénkaane yooyu mi ngi ko tàmbalee ci usika wa nafsi bi taqwallahi alazim maa ngi lay dénk di dénk sama bopp ragal yàlla ragal yàlla mu màgg mi kon loolu mu ci sofale màgg gi dafay wone ragal gi ni mu war a mel ndax nee na ko ragal yàlla day moo gën lépp lu mën a doon li annahu afdalu min kulli shay'in daa rotal mbind moo xam ne cheikh seydil muxtaar moo ko indi wax ne li am njëriñ day day dellu ci pas-pas yi waaye ak taquwaa muy ragal yàlla dinañ ci ñëw dana leeral njàngale bu am solo la indi bi indee taqwa indi lu koy maye indi nu ñu koy amee kan mu ne ragal yàlla de mooy bopp bépp xikma muy sages kon mu ne su koo am ci diine te amoo ragal yàlla te xam ngeen ne xikma day ku ko suñ borom jox jox na la yiw wu baree bare wa mun yu'tal xikma faqad uutiya xayran kathira mu ne kon ragal yàlla mooy bopp bépp sagesse waaye mooy li boole bépp yiw lépp lu baax mi ngi nekk ci ragal yàlla bépp xéewal ci jullit mi ngi nekk ci ragal yàlla mu ne kon boo bëggee xam-xam ndegam bëgg nga xam-xam na nga ragal yàlla yàlla mën na la koo may loolu mën nañ cee dellu ci wattaqullaha wa yuallimukumullah yàlla li wax ne boo ragalee yàlla dëggi-dëggi ragal dana la xamal yàlla dana la xamal mu ne boo bëggee wërsëg nga xam ne bari waa na ñuy dañ dañ ngir wërsëg lu ne ñu di ko ci daj nee na na nga ragal yàlla boo bëggee wërsëg mu ne boo bëggee mucc itam na nga ragal yàlla bu dee wërsëg mën nañ cee dellu ci wa yarzuquhu min xaysu laa yaxtasib yàlla nee na ki ragal yàlla yàlla dana ko wërsëgal ba wërsëgalee ko sax foo xam ne sàkkoowu ko fa ku bëgg mucc na nga ragal yàlla wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxrajan yàlla dina la musal dina la génne ci ay xat-xat kon li ma daan wax ci pédagogie bu njàngale mi am ginnaaw leeralal na ko ne mbir bépp yiw ci ragal yàlla la ne mu mel ne ci tàmbali daf ne suñu yitte jëpp nañ ko jëmale ci ragal yàlla xam ne ragal yàlla mooy ndénkaane ñi jiitu ak ñi mujj ni ko alquran waxee wax ci lu baree bari yitteel alquran yéen nit ñi ragal leen yàlla mi leen bind ci benn bakkan wa xalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaa wax ko waxin yu bari ragal leen yàlla kem seen kàttan ragal leen yàlla ni ngeen ko ni mu ko yeyoo mel na sa xeetu jaamu yàlla yi waxtu wi loolu taxu koo jóg waaye boo ci xooloon rek yi ci bari njëriñ la mu lay jural bu dee jaar na yoon ragal yàlla la war a doon kon ginnaaw solo sépp ci ragal yàlla la ne mu ne ko kon automatiquement bu la waxee loolu danga naan kon xëy na lan mooy ragal yàlla mu ne bu fekkee nee nga nag lan mooy ragal yàlla leeralal ñu ragal yàlla ba ñu mën koo xam sëriñ bi ne na nga xam ne ragal yàlla mu ngi nekk ci jëfee ndigali suñu boroom ak ci wattandiku ay tereem kon ragal yàlla bu ñu la ko doon tënkal mooy nga ngay jëfe ndigali suñu borom tey wattandiku di wattandiku ay tereem loolu nag bokkul ak ndax lu metti bu jógee ci nit sax kenn ñemewu ko waxuma laa bu jógee ci yàlla mu ne loolu bokkul ak nga ragal nattub suñu boroom ragal mbugalam te loolu terewu laa nuur ci ay tere suñu borom kon ragal gi ñuy wax du ragal gi nit di am ci laal safara wu koy lakk bu àndul ak wattandiku dana ko leeral wax ne kon jëfee ndigali suñu borom yooyu ak wattandiku ay tereem mooy ragal yàlla waaye bokkul ak ne ragal naa lu metti li mën a jóge ci nattub yàlla wala mbugalam ba pare nuur rekk sax ci yooyu nee na comme ni ko ñenn ñu doye di ñi njortee ni ñu njortee ne mooy ragal mooy rekk ñemewu waaye la mu laaj doo ko def nee ñi doye ñi nga xam ne iblis seytaane dalee na wor xam ngeen ne wor moom ci melokaani seytaane yi la bokk mi ngi koy leeral feneen ci ilhamu salaam di wax ni wa jarrahum iblisu lil isyaani walil tajarrui walil xusraani donte al majus wa nasaara lay wax waaye képp ku ta ku tàbbi ci seen melo yooya kat loola dana dëggu ci yow kon ñi nga xam ne waru nañ <coughs> nga xam ne boo leen waxee ñu ne la man dey ragal naa ragal naa suñu borom ragal naa mbugalum suñu borom ragal naa bàmmeel ak ak ak ak lëndëmu ba ca ne ak xat ba bàmmeel xat ragal naa mbugalum safara ak fitna ja ca ne ragal naa dee ak métitu dee ak sukuraat yooyu lañ lay wax ndax yooyu dëgg-dëgg kenn ñemewu ko waaye bu ñu nee ragal nañ yooyu ba noppi nag nuur ci tere yi suñu boroom loola lay wax ne loolu taxul muy wax ragal yàlla googu taxul muy wax <coughs> kon ragal yàlla gi tax muy wax dafay dox diggante nit ki ak nuur ci bàkkaar yi mu ne kon dañ naan ragal nañu yooyu te du leen tere nuur ci bàkkaar yu mag yi mu joxe ay misaal ne kan nazari ilal ajnabiya lu mel ne xool jigéen ju la daganut xoolub settantal ak bari bokk na ci solos ñu bëgg euh, si tax ñu bëgg a waxtaane lii yu bari da caa rot yoo xam ne dañ ko banaliser maam tere yi suñu borom yu màgg yu diis yoo xam ne dañu ko doyadal loolu sax dana ñëw ci doyadal gi walla bari gu mu bari ak lu muy indi mu ne comme xool ku la daganul jigéen ju la daganul ak bari ak ñu ko woyafal nga xam ne mujj na mel na sax loo xam ne aayatul ci ñenn ñi diggante xool ba ak nuyoo bi dinañ ci ñëw buy wax ciri yi ak loxo liñ ci war a wattandiku waaye buñ demee banaliser yu mel noonu ba ba ci suñuy institution sax dañ naan daal nangami góor fuñ ne rekk nafa fa mi jigéen ne dàq compétence dàq leneen lu mën a doon loolu ana lan moo war lan moo ko war a motiver mooy góor gu ne daal na tolloog jigéen ca tooguwaay yi ci instance de décision yi ak ci yeneen kon xool ku la daganul neen ak wax lu dul dëgg alkazib mooy wax lu dul dëgg aka bari aka ñu ko doya dal te ak a màgg ak a diis ci sunu borom ñu bari defatuñ ko muy dara léegi ma egsi fekk génn goo sa kër ak ñu koo woyofal maa ngi ci yoon wi fekk génn goo ñu koo woyofal wax lu dul dëgg ak ay xeetam ni mu baree ñu di ko def ci ci ci marketing yi di ko def ci commerce yi danga gis sax magasin bu ñu la bindal ne la tout est à francs lu fi nekk rek ñaar téeméer lay jar te boo fa duggee gis fa lu jarul ñaar téeméer kon yooyu yëpp muy xeeti wax lu dul dëgg mu dem ñu banaliser ko ba ci rawatina nag kilifay àddina yi ñi ñuy tuddee kilifay àddina woy politique yi nga xam ne wax lenn teggi ko ba mu set du dara ci ñoom du dara ci ñoom wax dara insisté ci mujj mel ne du yow yaa doon wax aka bari aka bari ci dige yi boo leen ma joxee ma def nangam boo leen ma falee ma def nangam nangam ci ñaar rekk lay yem mënu koo weesu bu weesoo nga jëm koo layal ak yeneen yoo xam ne dañu koo doyadal te dafa rëy ci sunu boroom wax lu dul dëgg léeg-léeg ci sax nga banaliser ko ci kanamu sa doom walla koy yar wax ko nangam nee ko nangam te nangam jooju nga koy waxloo kat bokkul ak li am kon lu rëy la lu ñu doyadal xiibatu mu teg ca ak jëw kon mu ngi di wax ne ragal yàlla gi tax muy wax bokkul ak nga ni ragal naa mbugalu bàmmeel mbugalum suñu boroom dee ak mettit wa sukuraat wa ba pare nuur ci yu mel ne xool ku la daganul yu mel ne wax lu dul dëgg <coughs> lu mel ne jëw alxiiba mbokk yi jëw mbokk na ci ñu banaliser banaalise nañ ko lool te ak diis bu ñu xoolee ni ñuy dundee ñun li ëpp ci ñun li ëpp ci ñun li ñuy waxtaan au quotidien suñuy waxtaan bu ñu ca génnee jëw mën naam la cay des du bari te ak diis ak a wat a mattandik ak wattandiku li suñ borom misaale ndax kenn ci yéen bëgg naa jëfandikoo yaramu moroomam fekk dafa faatu ni ñu sibee loolu lañ war a sibee jëw kon bokk na ci yi nga xam ne ki ragal yàlla dëgg-dëgg ragal yàlla daf koy sori niki noonu wax waxi caaxaan ak mbóosóor ak baril ko kon ñu jël bind ci yooyu ne mënuñoo mucc te ragaluñu yàlla te ragal yàlla dëgg-dëgg nag ku ko def yii moom danga koy sori ñu teewlu bu baax dafa wax ne kiy def loolu ki wax ne ragal naa yàlla ca dëkk ci xool jigéen ju ko daganul te ñu ñu ñu ñu jéem a contextualiser digal yeeg tere yi xool jigéen bu la daganut kat écran télé bi nga koy xool moog nga jàkkaarloog moom di ko xool ñoo yam sa smartphone bi nga koy xool moog xoolub xoolub xoolub settantal ndax lépp lu luñ la wax ci xool rek bët ba ca ba ca doog a dal te teyu ko taxul ñuy wax waaye nag boo ca delloo wala nga setantal moo tax ñuy wax kon li ngay xool ci écran yi jublu ko lépp dafay dafay tàbbiwaat foofa nee na ko nga xam ne daf ne ragal naa yàlla di def yooyu yëpp kat boo ne ko yii dafa xaraam xool setantal jigéen bu la daganul dafa xaraam boo ne koo jëw dafa xaraam yooyu ni mu bareeg ni mu banaale ni ñu ko banaliser banaalul ci suñu borom boo ko waxee loolu danaan la boo ko ne yii dafa araam mu ne la ah yooyu kenn mënu koo ba ndax ñëpp a koy def mbokk yi nañ seetantal loolu loolu kenn mënu koo ba ndax ñëpp koy def ndax def gu ko ñu bari di def du tax mukk mu dagan fekk suñ borom daganalu ko nee na naan kenn mënu koo ba ndax ñëpp dañ koy def mu teg ci wax ne ki lay wax loolu ne la lii mënuma koo ba ndax ñépp a koy def nee na bu suñu boroom fangoon jaamam yi am ñum regroupé di leen yóbbu safara lu ñooña bari bari du bëgg mukk bokk ca ñooña nee na ginnaaw ñii lu ñu bari bari ñii jëm safara lu ñu bari bari buggoo bokk ca ñoom kon ñii def lu ñu tere lu ñu bari bari kat waroo bokk ca ñoom kon ñu déglu ndénkaane day setantal ko te xam ne lu mat a bàyyi xel la rawani rawatina ci jamono juñ ne kon kiy wax loolu lii ñépp a koy def kenn mënu koo ba dafa war a xam ne da caa teg wax ne kooku dafa war a xam ne wala xanaa xamul ne li suñu borom tere woon suñu borom li mu tere ni mu réyee woon ci jamono yu njëkk yi itam ni la réyee ba léegi te nit ñi lu ñu bari bari ci di ko def di ko xëccoo di ca bousculer du tax mukk mu woyof ci kanamu suñu boroom na mu diise woon rekk la diisee ba tey ay jamono bi ñuy def boo gisee jigéen ju sol lu dul noona ni ngay tiitee walla nga jaaxle léegi mu bari ba banaal na mu rëyee woon booba itam noonu la rëyee ba tey kon nee na la sëñ borom tere woon na mu rëyee woon noonu la rëyee ba tey lu mat a bàyyi xel la mu teg ci wax ne moo tax ma ni lu lu mat a bàyyi xel la ci jamono ji musiba lu dul noonu li nul noonu isa ammat hënat maam bu dajee bu baree bu baree lool dafay mel ne dafa mujj doyadi day mel na dafa mujj doyadi nee na looloo tax ba njaalookat kat bu sañoon ñëpp di njaalookat ndax ñaaw téef gi mu dëkkee di ko def ndax mu xaw woyof ci moom niki noonu boroom xam-xam bu jeng borom yow mii boroom xam-xam te jeng boo boo boo sañoon borom xam-xam yëpp jeng ndax kon kenn du la joxoñ baaraam dañuy xam ne boroom xam-xam yi jeng bari na bu ñu ko waxtu wi mayee dinañ ci ñëw ci jengu borom xam-xam rawatina nag di jëm ci yenn jëmm yi wala yooyu te lépp mu ngi ci téere boobu mbokk yi kon tàmbali na ci dénkaane bi wax ko ne na nga xam ne yiw yëpp ci ragal yàlla la ne xanaa kon ñu war a laaj lan mooy ragal yàlla mu leeralal ko ko mooy bàyyi lépp lu suñ mooy mooy def lépp lu suñ borom digle te bàyyi lépp lu mu tere ci loo xam ne wute naag ñiy wax ne ragal nañ fekk na ñi ngi luur ca bàkkaar yi kon bu loolu weesoo mu ñëwaat ci di leeral ginnaaw bu mu waxee ne ñaawteef yooyu kat lu ci bari rek day mujj day mel ne dafa mujj doyadi te du tee araam ni ko suñ borom araamalee woon kon nga xam ne solo si yépp dafa nekk ci ragal yàlla gi mu waxee ne doyoon na sëkk ñu xam ne ragal yàlla ngëneel ci la ne mooy li suñ borom borom wax ne hudan lil muttaqin zalika alkitab la rayba fihi hudan lil muttaqin alquran lim nekk njub te nekkul njub lu dul ngir ñi ragal yàlla doyoon na ci mu ñëw nag wax la ak taqwa ragal yàlla googu mu la waxoon nee na ñetti tolluwaay la ñetti degré la ni ko cheikh yeddaani waxee nee na degré bu njëkk bi ci ragal yàlla mooy ban mooy loo xam ne dana la fekk ci sax ci safara mooy deñ ci bokkaale yàlla mooy xam ne laa ilaha illa benn buur bu amul benn yàlla amul bu dul suñu borom subhanahu wa taala loolu ki ko xam loolu dana ko dana ko dindi ci mu deñ ci sax ci safara maam bu duggee safara it bu ca tàbbee itam wal iyaazu billah du ca sax loolu nee na mooy tolloog wa alzamahum kalimatu taqwa baat boobu nga xam ne boo ko toppee kalima boobu dalay yóbbu ci tawxiit ji ngay gëmee na rek ci wàllu yàlla benn yàlla rek am ñaareel ba deuxième degré bi ci ragal yàlla mu ne mooy bi nga xam ne mooy tax ba lépp luy bàkkaar lépp lu ñaaw moo xam lu rëy la walla lu mag ci jëf ak ci wax da koy sori da nga koy bàyyi te nee na nag loolu sharaan dëgg-dëgg ci sharia loolu mooy taqwa mooy bàyyi lépp lu yàlla tere bàyyi bépp bàkkaar moo xam bu mag la wala bu ndaw ci wax ak ci jëf nee na nee na boobu mooy tolloog walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatax naa alayhim barakaatin min as-samaa moo ca topp